maa ngi nuyu mbokku éleveurs yëpp di présenté wu di wax man la xalifa Ababacar ñu gën ma xam ci turu Dany man may président commission scientifique bu Reptel ñuy am kontaante di nuyu de passage sunu président Khadim Fall di nuyu association sœur yëpp di wax ni ñi ngi am kontaante ci dajawaat fii ren di organiser suñu foire bi nga xamante ni dañ koy organiser chaque année di wax ni rek bërki démb nii bërki démb xar yu ndaw yu jigéen yi génn nañ mooy añal yi démb año yi génn nañu ñooñu nag dafa nekk ay xar yoo xamante ni nii moom dinañ leen natt mais ci bët lañ leen di natt moom mooy de façon optique ci bët rek lañ leen di xool jox leen ay not génn nañu présélection ñuy xaar après ni sélection deuxième tour yi bi loolu jàllee nii tey ñu ngi ñëw ci mâle espoir yi ak femelle espoir yi femelle espoir yi ak mâle espoir yi boo xoolee at yi jàll dañu daan dikk rek am ay critères yu nga xamante ni moom la ñuy natt bu dee mâle yi dañ daan jël TP jël LCS jël autor au garrot ba pare jël pois mais ren dafa am lu nga xamante ni nii dafa nekk lu bees lu ci xew moom mooy euh, xar yu jigéen yi daaw boo xoolee nii dañu jëloon euh, xar yu jigéen yi nii dañu jëloon seen TP mais pour base de données mais ren nag dañ ñëw jël euh, TP jël LCS jël hauteur au garrot et eh, bu ñu lool bu ñu defee lool noonu mu nekk premier tour yi mais xar jigéen yi boo xoolee at yi jàll daanu ñu natt seen TP mais ren moom dañu bokk ci li nga xamante ni ni dañ ko mettre en vigueur ba tax na daal ñu ciy bàyyiloo xel képp ku nga xamante ni ni yaa ngi nekk ci diaspora bi foo nekk rek di xool nga xam ni nii daal am na ay changement yu nga xamante ni nii beneen critère la bu nga xamante ni léegi nii dañ koy valider donc ni ku nekk rek ku nga xamante ni nii bokk nga ci di suivre ni euh, réseaux sociaux yi buñ la wanee xaar yi rek loolu bañ la ci berte voilà ndax boo xoolee ni auteur au garo bi nii dañ leen jox cinq jox leen LCS quarante jox leen TP 15 pour cent bu dee añel yi voilà yooyu noonu nag boo totaliser lépp nii day nekk 100 euh, points ñu ciy bàyyiloo xel ñëpp rek même grande famille yi ak mal espoir yi xam naa ni ñoom ñooy génn suba mais grande famille yi li ñu def ci espoir euh, famille yi loolu la ñuy def ci ñoom ndax base de données bi ñu daan jël TPN ni dañ koy mettre en vigueur jël ko mu bokk ci li nga xamante ni nii dañ koy concourir boo amee LCS lu baax am hauteur au garrot lu baax boo amee TPE lu baax kon donc nii pour nga raw day daal di yomb premier tour bi donc nag bu ñu génnee ci premier tour bi day am not additionnelle yi moom mooy li nga xamante ni nii dañuy xool yeneen critère de sélection yi tànk yi baax na bopp bi baax na amul benn handicap bu nga xamante ni nii bu visible lay doon kooku noonu pour nga raw après nii dana yomb mais daal ñuy wax ni ñun ñu ngi kontaan ci ñëpp di wax ni vraiment foire bi nii am na niveau am nañ ay bête de qualité et loolu noonu ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax tamit euh, defe naa ni àdduna moom noonu lay demee ku yokkul da nga wàññi mais daal ku dikk ba visiter euh, box yi di nga comprendre ni vraiment euh, ils sont à la hauteur waaw gars yi daal góorgóorlu nañ élevage bi mi ngi dox ñuy ñaan yàlla aussi tamit lépp lu fi nit am rek nga muurloo ko ndax daal loolu dong moom mooy àdduna àdduna moom nit kuy góorgóorlu war a sant yàlla nag ñaan mu teg la ay tànki kanam waaw tànki kanam yooyu nag defe naa ni yàlla na ko def yàlla defal la eh, képp ku nga xamante ni nii rek yaa ngi yëngu ci élevage bi et eh, ñuy kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm di wax ni des na liggéey bi des na ci kanam mais lu mu ci doon rek ak buñ ci tool rek bu soobee yàlla dinañ ci jéem a échanger ak yéen incha allahu rabbi